tey dañ ni dañuy profiter ci bis bi pour delloo kàddu gi taalibe yi pour que taalibe yi mën a wax ak seeni dëkkandoo mën a wax ak seeni kilifa mais mën a wax ak marani yi yaay daara yi ak sëriñ daara yi te yaakaar naa ni ku ñëw fii fekk nga ni dégg nga si xale yi ni ñu jëlee kàddu ak ni ñu waxee seeni seeni soxla sëriñ daara yi ak euh, kilifa yi bokk na ci soxla yi kayitu juddu ndax dégg ngeen xale yi ñoom ñëpp nee nañ ñàkkeetu du nekk na lu euh, dëgg ci biir daara yi bokk na ci wut xëy parce que ñoom nee nañ dañuy jàng alxuraan ñun bëgg nañu jàng alxuraan jàng bu ànd ak mokkal ak dal mais bëgg nañ aussi suñ jàng alxuraan ba pare ñu am métier comme ñoom niñ ko niñ ko bëggee moo tax ñun en réponse à cette demande là ñu ngi xool nan la ñuy def pour taxawu leen ba loolu nga xamante ne wax nañ ko ci biir saal bi ñu mën ci indi ay tontu accompagner xale yooyu sax commencé nañ ko. ndax am na ñaari projet benn projet boo xam ne mu ngi tudd euh, inclusion des talibés ak benn boo xam ne mu tudd insertion socio-économique des talibés inclusion des talibés ak insertion socio-économique ñoom ñaar ñëpp nag dañu nekk gën dañu nekk Dakar gën Sicap Kambaaw mais dañu nekk Kaffrine département de Kaffrine inclusion des talibés nekk commune Boulel ak commune Ñibé mais euh, projet réinsertion nekk ci euh, commune Kaffrine kon commencé nañu jàppale xale yi pour que xale yi jàng jàng bu ànd ak mokkal ak dal mais jàng bu ànd ak yaakaar métier.